Ndaw ci dal boobu muy saison 2010 2011 ci la Yaxya Diop Yékini ak Bombardier waroon la bëre ci saison boobu ca nga boole woon tamit Eumeu ak ki nga xam ne moo di Gris ma tudde woon ko saison de feu waaye saison bii saison bii plateau bii nu ma ko war a tudde mooy sama problème Eh bien, je que Gaston, saison de feu nga waaye saison bi saison volcanique lay doon waaye nag bu ma dajee xale yi damay bëgg tuuti rappeler leen l'histoire parce que fii ñu nekk tey dafa am taarix mais balaa ñu ciy ñëw Boy Niang numéro 2 dugg si le fils de De Gaulle de Pikine ñu bàyyi ko dugg si. ñu ngi ñaan yéen ñi ànd ak mbër yi ñi ànd ak mbër yi yéen da ngeen war a toog. ngeen mën a tuuti seen bi. voilà ñu commencé face to face bi ndax mi ngi guddi. voilà très bien. Liss. Boy Niang waay. Boy Niang maa ngi nii. Balla Gaye 2. Boy Niang maa ngi koy joxat. te jëm ba. Balla Gaye ngeen di teg. waa léegi li ñu bëgg ñoo ñoo ñoo mani mani mani. wàcc leen wàcc leen wàcc leen. il faut waaw na ñëpp wàcc. na ñëpp wàcc. wàcc leen ñu bàyyi fii ba la police la police s'il police s'il vous plaît la police. defar scène bi. su defee ñu mën a démarrer ndax ñu ngi en direct. ñu ngi en dem. la police s'il vous plaît ñëw leen ngeen raxas scène bi ñu war a démarrer nag waxtaan bi la police s'il vous plaît ayca le CNG veille au grain ku ci nekk na nga xam li la yoon nga def ko li nga xamante ni nii ànduñu defuñu signature nañu wàcc seen on a besoin que des lutteurs mbër mu ne xam nga ñaata nit nga war a àndal ñi ci des nañu wàcc. gars yi bu leen yàq signature bi yéen ñi ànd ak mbër yi ñaari mbër yi ñoom ñooy paas ñoom lañ soxla ci kaw vraiment yéen ñi ànd ak mbër yi mu ngeen wàcc. ñi ànd ak mbër yi nañu wàcc bàyyi mbër yi nañu wàcc bàyyi mbër yi ci kaw. s'il vous plaît les gars on se calme dans la salle.

waaye dañu ànd ak tuuti dal waay ànd leen ak dal Balla Gaye mi ngi toog Boy Niang mi ngi toog te ñoom ñaar ñëpp vraiment mosuñoo yàq lamb Balla Gaye mi ngi réglé staffam neen na waa staff bi yëpp wàcc ko nga xam xam ne mosul yàq lamb léegi wàcc nañu wàcc nañu Boy Niang 2 aussi ko ñu xam xam ne mosul yàq lamb les accompagnants s'il vous plaît wàcc leen ay grand waa kër Balla Gaye wàcc nañu waa kër Balla Gaye wàcc nañu waa kër Balla Gaye wàcc nañu waa kër Balla Gaye wàcc nañu donc yéen waa kër Boy Niang wàcc leen s'il vous plaît rafetal leen rafetal leen voilà voilà c'est bon c'est bon Boy Niang 2 musta yàq lamb Balla Gaye 2 musta yàq lamb elagement kon yéen ñi ànd ak ñoom bu leen yàq lamb ci voilà lii signature contrat rek la face to face la yëf yi le premier janvier la incha allah El Hadj Malick Thiandoum waaw chef El Hadj Malick waaw El Hadj lii ak lamb nag yàgg na tension bi ci lamb yàgg na waaw xam nga lii ak lamb ñoo ànd mais après lépp day day dal lépp day dal s'il vous plaît descendez descendez descendez Boña Cheikh Sarr si Boña s'il vous plaît Boña nangu dara wàcc leen Boña 2 mi ngay joxoon wàcc leen wàcc leen la ilaha illallah léegi nag léegi Cheikh comme nag wàcc nañu Alaaji Sala léegi léegi nag comme ñëpp wàcc nañu Alaaji Malick Alaaji Malick Alaaji xoolal léegi nii kaa wax leen benn affaire <laughs> gis nga public bi kenn waru leen tànn waaye kenn ku ci nekk yaa ngi a laal ak sa morom te kenn ku ci nekk laloo boole ak sa morom yaa ko def wane ko waaye attention attention attention diggante Boy Niang ak Balla Gaye numéro 2 loolu combat bu doy lay doon cher bu doy bu yéeme soo combat bu historique la. combat la bu nga xam ne dafa am ñaar yu ci laxasu j'évoque encore l'histoire Balla numéro 2 ñu ngi ko numéro 1 Boy numéro 2. ñu Boy Niang numéro 1. Balla Gaye Boy Niang numéro 1 daje Boy Niang numéro 1 waaye attention <laughs> loolu revanche la bu nga xam ne de par l'histoire ki nga xam ne mooy Balla numéro 2 de boobu nga def booy ñaaw du delloo buy booy bu fekkoon turam doon delloo woon loolu mooy coow wala mu am leneen leneen la fi la ko booy ñaaw numéro 2 nii toog moo daan rakki Balla Gaye gii di Sa waaye loolu keroog keroog laa la wax la Balla Gaye doon am lu ko naqari lool mu ni Sa Thiès daf lu tax Boy Niang di la daan Boy Niang di ko daan naa Sa Thiès yow waaye waa kër Double Less bi fii du fi naan a ñeex ñaari yoon mooy coow li ba tax na combat du ko gën a rëy yeneen combat yi bu ci kanamee boo ma ci tukkee ma dem. jërëjëf El Hadj Malick Thiandoum léegi noonu ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax El Hadj Malick Thiandoum jàmbaar la ci lamb liggéey ci liggéey bu am solo. Alaaji Sall Bigué la li ñuy def nag mooy dañuy daal di jox kàddu gi le Don King de l'arène moom mi nga xam ni moo sauvé lamb ci atum. Sénégal fii la soso di fi liggéey am ay këyit employé. Euh, réseaux sociaux yëpp nag dañuy bàyyi mag mu gërëm sponsor yi bu ñu paree nag ñëw ci dañ dëpp gi. waroon na def ci premier janvier 2022 diggante Balla Gaye 2 ak ki nga xam ne moom moo xam ne moom moo